sama mbokk mii nag di ñu koy tudd si Abdou Lahad moo toog nii Euh, di ko sant di ko baax di ko gërëm nii mu dikkee rek la ay kilifaam dikke dañuy ñaan nag ci barkeb Sëñ Fallu mbooleem lu leen tax a dikk yàlla leen ko yàlla yàlla leen ko yàlla saafaraal euh, noonu nag amuñu lu dul lu bi waaw amuñu lu bi dañuy ñaan rek yàlla defal nu jàmm te defal ko mbooleem adduna bépp rek euh, sëñ bi daal moom ginnaaw yaa fi nekk te ku la mujj ci néeg bi moo la gën a mujj moo la gën a xam la fa ne te sëñ bi laxati sa waajur te noonu bu ñu jaxas bu ñu demee ba mel nii ci bamba ji rek sa baaya kon nag yàlla na ko yàlla fayal di sant bu wér a wér nag euh, magal gi nag suñ fa loo ko la defal boppam bu xëyee dem Daaru Salaam bu fa nekkee ba fa ba bët set mu départ dafa ñëw kër sa yaafe jang toog ak moom di waxtaan ci ci rañaan mi am ngeen góor gu ko ne waaw lii loo ci jublu mu ne ko fàttali ko rek ndax ndax moom mm, war na koo jar ngir li ko yàlla sopp ba def ko ko waaye war na ko jariñ ngir lim nu indil sërite yi nag waaye nag yàlla dogal ci rek maa ngi nii rek waaw kon nag mm, yàlla nañu ko yàlla fayal te boole ko te te ci ñaan man kër gi rek jàng nañ ñetti téeméeri kaamil téeméer jàng nañ ko ci suba lañ ko tëjee fii ñaan nag ci adduna bépp jullit yàlla may leen jàmm rawatina nag bañ doonee ay nit ndax dafa suñ fallu nee na yàlla da ko soob mu tànn waaye bu ko neexul na noo def leneen lu dul nit waaye da ko soob nag mu sàkk lu nit ñu ñuy ñu def lu nit nee na bi mu defee nit ba noppi nag yëmu caak noonu waaye danoo def ay jullit nag nee ñu doon ay jullit di wéy ba yàgg rek nee na nee na suñ kii nag ñëw nga xam ne moom yàlla lim so lim def ci moom da ko soob mu def ko ci mu la yoon yónni ba tànnoon mu tànn ca muy nun ñii noonu murid yi kon war nañoo amu melo ñama ko war wax nag koo dégg muy wax nag bu waxee yeew na boppam na muy fexe ba yeew boppam nag moo koy wax man nag li may wax ci samay samay moroom yi dong rek laa ko yemale yal na nu yàlla musal te mosal nu yaaram dong yi ñun ñoo leen woo te woote bi nag muccoo ci ndax sa waajur wa bi mu fi nekkee moom bu jógee bokk barga wala mu jógee ci benn dëkkam boo xam ne doon na fa liggéeyal yàlla bu fanaan see Tuubaa lu mu lekk lu ne sëñ Fallu dana ci lekk ndax danaan ko ñëw ci biir dëkk bii di lekk sëñ Fallu te yëg te te ci li may lekk joxe ko kon day mel ne damay beru kon moom am na fu mu tegoon kookee kookee tam am na fu mu ko tegoon yàlla na leen yàlla fayal ñun nag sant nañ nee na woon nag woote dina yomb te ko woote des dina wuy si waaye ku wuy si ku ñu wuy si yàlla nga xam loo leen doyee noonu nag ñaan rek la ñuy doyee nit ñi di sant nag ki nga xam ne moo fi toogal Cheikhul Khadim sëriñ Mountakha di ko ñaanal yàlla yokk leeram yalla yokk ak wéram ba yàggal ko fi ba li nga xam ne li bëgg koo liggéeyal sëñ Touba mu egg ba mu tekki leneen moom daal na sëñ Touba wannu boppam ci moom muy kiimaan yàlla na ko yàlla def te wér gi fekke ko muy sëriñ Abo yàlla bàyyi ko fi solo luñ ci dara te lu mu nekk ña nga ca jaarale ko sëriñ Basiiru mi nga xam ne mooy sunu kilifa kër ak sëriñ Abdou Fatah yi mu yor kaddu gi eh, a Badji yu nag moom la yàlla jox bis bi ci loxoom kenn ku ne jox na la ci la man fi ne lu ñuy def ca Ndakaaru man la ñuy yabal te loolu lépp ak yaatal la kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne daal luñ ci bëgg mooy ñaan ci yàlla yàlla defal nu jàmm réew mii nag lan bëgg yàlla def fi jàmm képp ko tiitul nag gone nga ndax kenn xamul lu xew waaye nag lu mën a xew danañ xam ne mag ñi fi tëdd luñ luñ démystifier liñ fi def du te yàlla fay leen dara du jàmm rek a fi xew kon nag yàlla nañu ko yàlla defal ci barkeb màggal gii ak ci barkeb ki tax ñuy def màggal gi ak mag ma demoon dëkk indil ñu sëriñ bi wasalaamaaleykum wa rahmatullah. salaam